di la nuyu bu baax président de la république du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye jaxaar fay sama laaj dama koy jëmale ci li nga xam ne sànq yaa ngi koy wax muy ay kàddu yu ñagas yoo xam ne dañ koy faral di dégg ba ci sax xëy na loo xam ne mën na indi ay jëye ci réew mi ngay évoquer réseau sociaux ñu am loo xam ne gis nañ ko ces dernières 48 heures muy koo xam ne da nga ko nome bi nga ko nommé ñu toog tuuti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xam ne moom nga ko nommé mu di PCA bu euh, SNHLM nit ñooñu après ñenn ñi di ko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen lool ci biir parti bii di Pastef te nga bokk ci démissionné woon ci sa secretariat général bi nga xam ne yaa ko jiite woon sànq yaa ngi koy souligner est-ce que euh, Samba Ndiaye bi nga xam ne moom lañ nommé da ngeen ko fas yéene teggi ndax dégg nañ sànq premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataaxal am lu mu wax ne des mesures correctives seront apportées mu ne loolu lan lay tekki ci mesure corrective yooyu le bu ngeen ko teggee ci post bi mu nekk est-ce que du wane que ni président de la république dañ koy def pression pour que su su fekkente dafa jël ay dogal jërëjëf. commentaire moom naa la ko bàyyi <laughs> puisque moom annoncé na ay mesures correctives xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañ koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul. ñuy wax que ñu bokk ak man làng wala ñu bokk ci sax kuje gi ñu bañ a d'accord ak man ci li nga xamante ne moom laay teg comme ay acte bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition que mu nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ni maa koy posé comme acte parce que dañ maa dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñépp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li parce que coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteek jàmm dafa am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon ñu ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegul woon lu dul lu dul ne bëgg a sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw grand théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonant bi la sallallahu alayhi te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement Mandela bañ a fayantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti metti la ak nu kàddu gu ñaaw ñaaw ak luñ ko teg teg teg te yàlla xam ne ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a sóoraale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay Sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañun ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci poste yi commencé na ak la commission nationale des droits de l'homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko assemblée nationale dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci ci buñ koy falaat day am appel à candidature te ñu ngi ci procédure yi bientôt ngeen gis lancé nañu ko kon boobu ñoo ko ci dugal ni ko nar a dugalee ci yeneen post waaw buñ ko dugalee est-ce que dañ koy appel à candidature bi day nekk kese ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun wala sénégalais yépp lay nekk ak boor bu ñu mën a bokk waaw bu ñu nekkee ci boor bu ñu mën a bokk est-ce que dañuy wax ne képp koo xamante ne mës nga wax Bassirou Diomaye fay lu ñaaw rek mënoo bokk ci appel à candidature bi gëwuma loolu li ma gëm kon appel à candidature mën na ubbi jur ay nit waxoon ci ñun lu ñaawa ñaawa ñaaw tegoon ñu sax lu méttee méttee méttee waaye commission buy analyser dossier yi nangul leen ne ñoo gën a xarañ ñu jël leen teg leen est-ce bu boobaa dañuy wax ne ñii dañu doon wax lu ñaaw donte ñoo gañe nañu leen teg fu ñu nekk gëwuma loolu li ci tegu nag mooy dama nekk kaso ñu teg coalition coalition bi ci base bi ñëpp xamoon nañ du pour man pour suñu candidat bu ñu gàllankoor la woon bi ñu demee ba mënatul dem ñu teg ma coalition bi doon coalition Diomaye président dañoo fekk fa nit ñu bari ñu xeex ak ñun ndax boobu ñu ngi ci opposition jëlaguñu woon nguur ànd ak ñun ñu gañeendoo nguur mu am ci ñoo xamante ne nag ci période bu ñu ñëwee ànd ak ñun ndax dañoo bëggoon nekk candidat ñu gàllankoor leen ñu ñëw ànd ak ñun wala dañoo renoncé sax laat ñu leen di gàllankoor ànd ak ñun wala dañoo dabee feneen ñëw ànd ak ñun ñooñu joxe nañ def nañ ci coono def nañ ci seen alal def nañ ci seen temps kon ñooñu dañoo ànd ak ñun xeexandoog ñun ak fi ñu mën a dabe bu ñu am nguur kon ñooñu kenn mënul wax ne dañoo transhumé kon buñ ci falee kenn ñu àndilaat wax joo xamante ne waxoon nañ ko mu ñaaw te kiñ ko gën a wax sax moom baale na dama yaakaar ne bu ñu nekkee du sili loolu jafe-jafe yi ma fi fekk ak féewaloo kon du fi mës a dañ te kon day nekk pàccum Sénégal yu am solo parce que bu ma jëlee seen candidat kese waxuma ñeneen sax ñoo xamante dem nañu voté feneen am nañu 1 million 600 mille voix te du ñooñ kese ñooy Sénégal day nekk pàcc bu important yu Sénégal yoo xamante ne ci ni ñu waxee nii pour jël ci xayma rek Sénégal 2050 daanaka dañu leen di génne ci ñu mën a liggéeyalaat seen réew gëwuma loolu par contre ku ne xam na Bassirou Diomaye Ousmane Sonko keneen ak keneen ci biir Pastef ci opposition bi ku politikul amul kenn koo xamante ne di nga def lu waroogu yoon yaakaar ne jege pouvoir bu ñu nekk actuellement mën na doon protection pour yow parce que gëmuñu loolu kon ku ñëw bu dee dafa am loo xamante ne def nga ko li ñu lay defee bu bu jotee ñu toppee la ko dinañ la topp ci ñuy ànd ak ñun ci coalition ak ci ñoo xamante ne sax ci bu ñuy sos parti bi ñu ngi ca woon ba ci man mii nga xamante ne maay président de la république kon que ñu teg ay ay acte mu nekk nomination mu nekk ay décret mu nekk ay leneen ak leneen ay nit bañ ci kontaan loolu lu ma comprendre la lu ma nangu la ndax loolu mooy démocratie merci beaucoup excellence